wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri man asalaamaaleykum Touba ca kanam nooru daare ni commission finance sous commission gestion de fonds ñu fas yéene indi li nga xam ne moo fi dugg ci weeru octobre ak li nga xam ne moo fi jot génn ñu ngi tàmbalee nuyoo bi ak siyaar bi ci sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool ak kilifay Touba ca kanam yépp kon ci biir réew mi

Wave plateforme huit millions trois cent douze mille six cent soixante trois francs Orange Money plateforme deux million six cent cinquante huit mille huit cent soixante deux francs Dakar six million seize mille Kayar deux cent soixante quinze mille Pout quatre-vingt mille Bambey cent vingt mille Diourbel un million deux cent Daayira Babul Ayaadi quatre-vingt et mille Goudiri trois cent mille Joal quatre cent quinze mille Kaolack deux million Kébémer un million sept mille Kédougou trois cent quatre-vingt-dix mille Kolda deux cent quarante mille Louga deux millions cinq mille Mbour deux millions quatre cent trente mille cinq cent département Dagana trois cent quinze mille Moudiri cinquante mille Thiès un million deux cent croisement Diaroumbé cinquante mille Ndiawara Touba cinquante mille Fouta wore Alfadi cent cinquante cinq mille Fatick cent trente cinq mille Bakkan Laman Refan cinquante mille cinq louis quatre cent quinze mille Khoudiane cinquante mille Madina Touré cent mille Darou moxti cinquante mille Tamba six cent mille versement anonime mooy yi nga xam ne dañ koo versé te xamuñ xamaguñ xamuñu waxuñu seen tur un million trois cent seize mille deux cent soixante sept kon li dugg ci réew mi ci weeru octobre ci carte Agrossi mu ngi toll ci quatre vingt douze millions huit cent dix huit mille huit cent quatre vingt quinze francs jaayante ci opération wàllu deux millions huit cent cinquante cinq mille sept cent lampe domestique muy làmp yi dañ koy wecciku fii ci sees bi li liñ ciy jot a wecciku mi ngi toll ci un million deux cent quatre-vingt-dix mille loolu moom lañ ci jot a wecciku bu dee li nga xam ne dellu si waat na ci ci ci ci banque yi mu ngi toll ci un million cent soixante-cinq mille ci diaspora bi ñu tàmbaloo ko ci zone Asie Japon deux cent quatre-vingt mille kon zone Asie deux cent quatre-vingt mille moo fa jóge ñu dem ci zone Amérique tàmbale ko ci Brésil quatre vingt dix mille moo fa jóge kanada cinq cent cinquante-huit mille Argentine un million cinquante-cinq mille États-Unis trois millions kon li nga xam ne moo jóge ci zone zone Amérique bi yëpp ci weer octobre mu ngi toll ci quatre millions sept cent douze mille francs quatre millions sept cent douze mille francs euh, ñu dem ci zone Europe tàmbalee ko ci Portugal un million six cent quinze mille Suisse six cent vingt et un cent cinquante Italie coordination onze million sept cent dix-huit mille trois cent soixante-quinze France coordination trois million deux cent vingt-six mille deux cent cinquante Espagne deux million cinq cent soixante-trois mille 465 kon zone Europe la fa jóge ci weeru octobre bi mi ngi toll ci 19 millions 744 mille 240 francs ñu ñëw ci zone Afrique Mali 853 mille cent Gabon 1 million 135 mille Cameroun 2 millions 525 mille Mauritanie 2 cent 806 mille 600 Guinée Conakry 653 mille Angola 80 mille cent équatoriale 936 mille Afrique du Sud 1 million 135 mille kon total zone Afrique maanaam li nga xam ne moo dugg ci son Afrique bi yëpp mi ngi toll ci 10 millions 124 mille 300 10 millions 124 mille 300 moo dugg zone Afrique kon li dugg ci Touba ca kanam weeru octobre. mi ngi toll ci 132 millions 990 mille 135 francs 132 millions 990 mille 135 francs loolu moo dugg ci weeru octobre ci biir réew mi ak bitim réew. kon ñu indi leen li nga xam ne moo génn ci weeru octobre comme niñ ko waxee laaj lu ñu mën def fu nu xam euh, ci weeru octobre sànc université bi def nañ ci million 18 millions 412 mille 318 francs. poste de santé Kër Gol def nañ ci deux cent mille poste de santé Daaru Xaddim def nañ ci un million quatre cent vingt neuf mille sept cent quatre vingt six ODY muy opération defar yoon yi def nañ ci six millions deux cent seize mille sept cent quatre vingt francs commission sociale def nañ ci quarante millions quatre cent cinquante trois mille francs commission communication trois cent mille commission massification quatre cent vingt cinq mille commission logistique vingt deux millions huit cent quinze mille six cent quatre vingt francs commission reboisement muy li jëm ci garab yi un million cinq cent soixante dix huit mille deux cent cinquante francs budget de fonctionnement maanaam mooy yi nga xam ne dañ koy dépense yu yi faral di génne dépensé nañ ci lu toll ak 2 millions. commission scientifique et culturelle 765 mille commission leeral 1 million 357 mille francs cent million 357 mil francs charge fixe ak salaire yi mi ngi toll ci 7 millions 737 mille cent francs commission cent 407 mille commission féminine mooy mooy commission soxna yi deux cent cinquante mille commission santé deux cent mille frais bancaires soixante un mille sept cent quatre-vingts francs total décaissement mois d' octobre maanaam li génn ci mois d' octobre bi mi ngi toll ci cent quatre millions six cent neuf mille zéro quatre-vingt-quatorze francs kon ñu répété ko cent quatre millions six cent neuf mille 0,94 francs kon loolu mooy li nga xam ne si moom lañ moo génn ci weeru octobre li nga xam ne si dugg na ci weeru octobre mi ngi tollu ci million millions 990 mille 135 francs li ñu jot a li jot a dugg ci weeru octobre buñ ci génnee li ci génn mi ngi li ci des ci weeru octobre mi ngi toll ci 28 millions. trois cent quatre vingt et un mille zéro quarante et un francs vingt huit millions vingt yon millions vingt huit millions trois cent quatre vingt et un mille zéro quarante et francs loolu moo des ci weeru moo loolu moo des ci weeru octobre. kon solde bi nga xam ne moo nekkoon ci moo desoon ci mois de septembre mu weeru septembre mi ngi toll ci cinq cent soixante sept millions cinq cent trente et un mille huit cent francs moom moo ci nekkoon ci weeru septembre bu fekk see li nga xam ne. moo fi nekkoon ci weeru octobre day nekk ci cinq cent quatre-vingt-quinze millions neuf cent douze mille huit cent quarante et kon solde bi octobre mi ngi toll ci actuellement mi ngi toll ci cinq cent quatre-vingt-quinze millions cent douze mille huit cent quarante et kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ki newoon ci kàddu gi mooy Pape Ciss Gabon ñu ngi sant waa session de fo ñëpp ak mbooleem waa Touba ca kanam ñëpp di ñaan sëñ Mountakha yàgg fi loolu téwér ak mbooleem ak mbooleem ñi tàwul liggéey bi yëpp di siyaar ñëpp di jaajëfal ñëpp jërë ngeen jëf wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abi xayri man